dikkati na fa président Macky Sall tegoon loxoom day président Diomaye nee na tegget conc la yëkki teg fee moom président Diomaye tàmbalee xool l'enquête quotidien naan kon moom Diomaye ka yorinuk Sall lay xool l'indépendant naan kon moom président Bassirou Diomaye Diakhar Faye rapport yi nga xam ni dañ koo gasoon ba mu xóot moom la fas yéene sulli daal di salfaañee l'observateur naan kon ma ngay fuye Sall moom Diomaye ma ngay fuye Macky Sall vox populi naan ko déet Diomaye kay dafa tàmbalee yër fu ne tàmbalee na waaye waaye jomaaya ngay sedde tribune yéen a kaay naan koon rax ci dolli mu naan yéet waa gouvernement ba damaa bëgg rapport yi nga xam ne am na ci réew mi diggante 2019 2020 2021 2022 ba ci 2023 goxi leen ko génneel leen ma leen teg leen ci mbedd mi na askan wi yër la nga xam ne noonu lañ yoree woon seenu alal yéen i kaayib dee média bi naan maan moom président jomaay dee activé na IGE activé na OFNAC waaye tam activé na cour des comptes ca yorinu covid 19 ba coowal junniñ milliard ba nga xam ne ña ngi ko doon laam-laamee rapport rapport yi nga xam ay jëwrin waaye tam ay dage président Diomaye nee na na leer yéen kaayub dee média bi naan man barki boo njaay moom Alioune Ndoye of nag nee woon na ko fi nii ci ay licence de pêche yoo xam ne dañ ko daal di joxe woon te loolee nag daal di caxat-caxatee jalgati code maritime bi yàggul dara président Diomaye nee na na leer juróom benn fukk ak juróom ñeenti milliards yi nga xam ne dañ ko jébbaloon Mansour Faye ngir askan wi ci seen dundi nag jafe-jafe bëggoon nag ab ministère am daal di teggil askan wi ak coono loolee it of nag joxoñooñ ko ci baaraam ak tuuma moom président Diomaye Faye nee na na leer te bu dee leer dong tribune yéen a kaay naan leen bu leen fàtte rapport IGE 2020 moom Mary Teuw Niane mii nga xam ne tey ab jëwrin la ci gouvernement Diomaye ak Mimi Touré mii nga xam ne lonku na ko mbagg épinglé woon nañu leen ci rapport yooyee loo ci man ci it laas yéen a kaay naan man président Diomaye ngay sulli ay mbóot lee fa yéen a kaay naan kon ku def tiital audit yi tàmbali na reddition de comptes tàmbali na leeral lépp lu lëndëm moom daal dinay ci réew mi démb ca conseil des ministres nee na rapport yëpp génn ne fang ma nga naan diggante état bu Sénégal ak Sen'Eau nañu ko leeral waaye tam na naval yi nga xam ne moo soxal Dakar Nave ak la nga xam ne moom la Dubai Port World di def ca port bu Ndaayaan ba it ko leeral Sud Quotidien nan kon Dakar Nave day danoo caxat caxatee contrat am lii nag président Diomaye nee na na leer fa yàllaahu nee na nag nañu saytu partenaire public privé yi nga xam ne am na ci réew mi waaye tam contrat yi ñu xaatim defoon koy délégation ngir ñu may as askan wi nga xam ñoo dëkkee ci kaw ga ndox yoy les contrat nañ ko léral ne gees na ministre de la justice tégal ab projet de loi bo xamné na mu gëna baxé na daal di ñi nga ay lanceur d'alerte lañu le soleil yéen kay kaay kon ay dogal yu mag état bu Sénégal jël nako bëgg nañu taxawal bureau d'intelligence ak prospective économique waye tam bëgg nañu taxawal direction des affaires religieuses ak itam insertion bu diplômé bu enseignement arabe yi loolu lépp ñu war ko loger ci présidence direct news naan kon bu dé safaral kilifa diine dong la yéenal ma xamal la yow président Diomaye li xew ni ki démb te lii mi ngi xawee aéroport international Blaise Diagne moom xalif général Thierno Bachir Tall dañu ko ne salon d'honneur bu aéroport ba doo fa dugg moom Thierno Bachir Tall ma nga xam ne États-Unis la jëmoon waroon jaar ca Paris ñu tere koo dugg ca salon d'honneur ba xalif général dafa mujj génn aéroport dem Thiès xaar fa waxtu wala mu door a dikkaat ci aéroport ba ñu xamal ko ni nag officiel yi kese képp léegi ñoo am droit dugg ci ba ndax ministre de l'intérieur ba sonn ken munu ko jot lii tax nak yene kay bi samp laaj mbaadu généraux yi ci réew mi léegi ay citoyen ordinaire lañu comme le soleil yene kay nan kon moo day direction des affaires religieuses taxawal nañ ko te ña ko loge ci présidence wax nañ conseil des ministres ba it ci tabaski tribune yene kay nan kon jarul sori Sénégal juroom ñaar fuk ak juroomi junni ci ay xar soxla na ko le soleil nan kon wax nañ ci nawet gi wax nañ ci mbay mi wax nañ ci examen concours yi waye tam wax nañ ci aj gi 24 procureur yéene kaay naan kon fi mu ne taxawaay ku tëb dal cib xal la Ousmane Sonko président Bassirou Diomaye Faye nekkee ci réew mi en alerte kay Le Quotidien mel ni ku naan ñoo yey de ndax FMI ngay sàkku moom nguurug Sénégal mu xooraat yorinam ak doxalinam waaye tam xoolaat bu baax ay nekkinam ndax boobaak léegi xamle na ni amuk génn recette goo xam ne bàyyeekoo na ci pétrole L'Observateur sampub laaj mbaadu dañoo nekk ci nguur goo xam ne gars ñu defanteel la ñuy sulli seeni mboot di leen yàq keteme port autonome bu ndakaaru ña nga xam ne ñoo fay liggéeye daal weddi nañ ko l'observateur naan cay boole gi boole gi ci réew mi tribune yéene kaay nan kon cadre unitaire bu syndicat yi nga xam ne ñoo nekk ca ONAS ña ndax ndaqar luy ñoom it xeer yi nga xam ne ñoo ngi koy jotte lépp nag bàyyeekoo ci politique waaye tam suuxlu seen directeur bii di Mamour Diallo cadre unitaire ba naan weñ waa nga bañee ca mbànjaxaan ba waaye tam coow laa nga bàyyeekoo ci yenn ci seen liggéeykat yoo xam ne nag dañoo guuxal Mamour ndax laataa Mamour jafe-jafe salaire amoon na léegi prestataire ak permanent mooyam ñëppay jot salaire à temps prime d'assainissement fukki junni ñu jot treizième mois ñu koy jot rawatina nag liggéey yoo xam ni tàmbali na ci zone yi faral di am mbënd yu ci mel ni cité Bastos zone de captage Bourguiba Castor Liberté 6 ba ci Grand Yoff le point actu mel ni ku naan man coow lu coow lu ci réew mi wàllu politique la yéene kaay bi naan man ëllëgug politique ug Bougane Gueye Dany tey falaarik sama baaraam xool nag yan yoon la war a jaar ngir ëllëgëm ci wàllu politique moom njiital gëm sa bopp yéene kaay bi naan man yoon a ngi nii moom ñu duppee vraie opposition diggam ak jomaay ndax nag coow li coow li mooy jegewul pouvoir jegewul opposition mi ngi ci digg bi kon nag ak fi mbir yi toll mën naa xàll yoonam à tout moment moom président jomaay moomee mareyeur ci turbine yéen kaay di ko sampi doléance naan kon seen secteur yi fi mu ne mi ngi ci crise goo xam ni maar day taali jën manqué na ci sunug waax yi it ba maar day taali situation boo xam ne nee ñu ne ñuy caxat caxatee géej yi bato yoo xam ne ñu nga bàyyeekoo bitim réew di jël jëndug Sénégal yóbbu seeni réew lii mu ànd jafe yi collectif bu mareyeur bu réewum Sénégal ne bu napp gi doxee lu bari mën naa dox ci réewum Sénégal Jibi Gueye Ndiaye ne nañ leen jàppale ci bato yooyu nga xam ne ñi ngi jaxat-jaxatee géeju Sénégal waaye tam jooyanti secteur bi nga xam ne mooy napp gi jàppale leen nag ci ay action sociale yoo xam ne mareyeur bu ci dem retraite dina gis boppam ci réew mi coowal jalisi yi jeexagul ci réew mi ndax ña nga xam ne ñoo nekk fii ci hangar pèlerin yi ña ngay xam leen ni jafe-jafe yi foo ko natt weesu na ko diggante dem ca site goo xam ne mi ngi leen di jural jaxat na ma ndox boo xam ne am na ca site garab yi ñuy jënd te mu cher lool ñàkkub ambulance bu leen mën a yóbbu saabu complication amee infection yoo xam ne ma ngi leen di bëgg faat moom professeur Fadika daal dina ñaar fukki weer a ngi ni ñi ngi ci angaar bi te ñi ngi liggéey ci condition yi gën su doon infection am na day daañu ko xam grippe nag mënu faa ñàkk te yenn saa yi ni ñuy tegee cathéter yi su jaarul yoon mën naa indi infection waaye nemmeeku wuñ fa yoo xam ne mënees na cee alerte surtout angaar bi mooy centre dialyse bi gën a rëy ci réew mi téeméeri malade des na leen fa téye junniy séance de dialyse des na ko fa def weeru yàlla sax libération yéene kaay naan kon ak lu mën am suul bukki sulli bukki gi moom ci réewum Sénégal léeg mu dak ña nga xam ne ne dañuy defi maguy day bu leen yeboo tàmbalee tëddee benn bët tribune yéene kaay naan kon rax ci dolli yenn fonction yoo xam ne mi ngi ci secteur public ak parapublic bi nee ñu léegi appel à candidature mooy am dootul xëy rek tabb day laaj déposer dossier ñu daal saytu ba noppi door a tabb tribune yéene naan kon ak lu mën a am gouvernement président Diomaye bi sénégalais ña ngi leen di xaar ngeen leeral ci quatre-vingt-quatorze Protim sénégalais yaa ngi leen di xaar ngeen leeral lan ma waral King Fahd Palace ñu daal di koy privatiser waaye tam ngeen leeral coowal Sécuriport li ak lu ma a mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm